The constitution provides, mm -hmm. co, mm -hmm. president can declare a state of emergency in two circumstances. Mm -hmm. Now I believe co, Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional co, as know, it can last for two weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ anda soppi nguur gi fi nekkoon mhm. pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi dégga bi mooy you want to be humble and everything why you are not an ordinary minister in this cabinet that's true because you are head of the UDP you are like a father figure to to most of the. monsieur Saba loolu mooy loolu mooy dégg it's the fact. whether moom accept ko or loolu mooy dégg so the point is lu ñoo laajte mooy. prominence bi am. de baro def la dee consult o léegi léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si baro pour am. président Adama dafa am mandate. da ko Gambians choose. ne na liggéeyal réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaji ko yani mela ay mul ay tiñarol min ke gam jejang mul wole ta ka fo ko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da ko tenge isaje fo gambe nol si la pati ni la ko tenge no yalo yalo say you are putting me in a funny position <laughs> mul ka fo do kam da ni fa de ko bita jahanna <laughs> ni kala te ko kala kala asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ngi leen di dalal ci euh, gis-gisi tey bi ñu ngi leen di euh, baalu ci later start bi lu ko waral mooy euh, dañ jàppoon trop dafa am si lu ñu nekkoon loolu moo tax bañ maanaam later start tey nag dañ bëgg waxtaanee ci li nga xam ne mooy Semlex gis nañ seen contract bi nga xam ne ñu ngi ko am ak ñi nga xam ne mooy government ni Gambia muy nguuri Gambia tey nag ñu ñëw pour ñu waxtaan ñu xool naka la ñu mën a def rek ba maanaam faram-fàcceel ba pare xool tamit naka la ñu amee solutions pour li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne rek Gambians yaa ngi koo because gis nañ lot of Gambians ñu ngi complain ne maanaam fay bi bi euh, fii bi nga xam ne boobu la nit ñi war a fay pour am li nga xam ne mooy ID card bi euh, maanaam gars si lu ñu wax seen ñaxtu moo nekk dafa seer si lu ñu wax euh, ñu ne dafa seer gis nañ tamit ñeneen di complain ne maanaam contract bi dañ ko war a jox ne mooy Gambian bi nga xam ne mooy Pristine Pristine Company pour rek ñu mun a jàppale suñu doomu réew mi waaye ba loolu nag dañoo waxtaan ak of course suma panelist yi maa ngi am tey ki nga xam ne mooy Daba Malick dinañoo bëgg a join all the time ak tamit ki nga xam ne mooy Mr Sabally of course docteur Ismaila Malick Daba ñu ngi la dalal ci programme bi ah, tey lu ñu bëgg a waxtaanee si lu gën a gaaw rek mooy dama bëgg nga jox ma sa. sa gis-gis ah, gis nañ dafa am contrat bi nga xam ne ñu ngi ko seen ah, nguur yaa jame la nguur nguuri baro la kenn xamut waaye soo demee into wax nañ ne ah, maanaam li nga xam ne mooy Semlex dañ seen contrat ak li nga xam ne mooy government ni jame bi ci lu yàgg ba tax nag government ni baro bi gaa yi ñëwee tamit gaa yi continuer ci the same steps yow na gisee loolu na nga gisee jàngat boobu noonu am na ay wax yu doon wax yu nit ñi di wax ci Pristine tamit ci wàllum boobu noonu wax ma wax ma ci noo ko gisee that contract jërëjëf Ansu ah, kontaan na ak sant yàlla tamit bu ma ñëwaatee tey après ñu welcome suñu brother docteur comme moom last time mi nekk doon fi ah, man suma gis-gis mooy ah, government continuation la and government bi am na responsibility donte su nekkee ne nguur yi APRC oo yaa jël ñoo sign on contract bi ak ak Simlex ñoom suñu ñëwee seen wargar la ñu reviwaat most of the, all the contracts yu government bi la leen sign ndax si interest askan bi la nekka ndax nekkul interest askan bi so loolu mënuñ si sukkandiku pour wax ne comme government yi Yahya Jammeh moo ko sign on dañoo ñëw ñu continuer loolu parce que bu ñu fàtte am na contracts yu nga xam ne ni government yi ko sign on waaye government yu mu ñëwee daf ko terminate am na ñu nga xam ne ñu ngi doon liggéey si nguur gi ah, Yahya Jammeh moo leen nguur Yahya Jammeh moo leen jëloon ñuy liggéey ñu ñëwee dañ leen génne so man li ma gis mooy <coughs> force ñoom li ñu waroon a njëkk a jëf mooy ñu toog ñu xool contract boobu noonu askan bi ban intérêt la leen amal su nekkee ne njëriñ bi njëriñi askan bi la mun nañ koo continuer waaye su nekkee loo xam ne ni la nekkul njëriñi askan bi comme lu ñu nekkat di gis parce que Similex tamit bu ñu fàtte ne compagnie la boo xam ne nekkul Gambie rek la njëkkee am na si réew yu bari yu mu nekkoon waaye ba ëllëg yu mun ngaa dem google nga google ko amul benn xibaar bu baax wala bu rafet mhm. booy gis si compagnie boobu noonu so man foog naa loolu rek waroon naa nekk lu tax nguur gi si boobam mu ñàkk a continuer contrat boobu noonu. ak Senelex ba pare beneen bi mooy yaa ngi wax Pristine. Mhm. Pristine doomi réew bi borom compagnie bi doomi Gambie la. Mhm. te soo demee si GPPA ak bi. Mhm. dafa wax ne su nekkee ne ñaari compagnie dañ nekk di dem pour bit. benn compagnie bi nekk ak keneen ki nekkut Gambian. priority. Ah, waaw gars ah. ñi man lu ma dégg mooy ñu bari dañu wax ne Pristine dañ bañoon a. Uh, naka submit bid su nekkee ne loolu dëgg la automatically loolu dafa disqualify Semlex so xaw nag lan moo nekk dëgg bi ak lan moo nekkul dëgg bi parce que dañu am nguur boo xam nii dañ dee toog si information du wax xanaa coow bi bari rek ba affaire bi tànga ñu door a ñoo génn te lu ñu dee wax yëpp daf da nekk half baked information information si yoo doo si mën a sukkandiku pour nga analyse properly gis lan moo nekk dëgg ak lu nekkul any day any minute su nekkul ñoom ñaar sax ak compagnie bu mu di nekk mu nekk ak boo xam ne ni doomi Gambie moo moo ko moom parce que lu tax mooy xaalis bi ñoo koom-koom bi compagnie bi di am dafa des si réew bi mm-hmm. te most of these people uh, foreign companies yi seen xaalis bi daf dee génn ba pare soo cegee ñoom su ñoo ñëw suñ government bi tax exemption suñu dee jox dis companies lu bari du ko dee jox compagnie yi nga xam ne doomi réew bi ñoo ko moom fii lañ juddoo ok daba daba euh, monsieur Sabally euh, contract bi euh, time boobu noonu jàmme government am bi gaa ngi woon di liggéey ak ñi nga xam ne mooy Semlex government yi baro bi tam ñu ñëw ñu ngee continuer ak ñi nga xam ne ñooy Semlex na nga gisee loolu sa jàngan situation bu xala naxari la it's very difficult mm-hmm. comme lu ñu wax contract bi Semlex bi mm-hmm. Euh, nguur Yaya Jammeh ñoo ko door euh, nguur gi ñëw am ñu amoon yaakaar ne dinañ wecci doxalin ñu jox ko beneen compagnie bu loolu amutee ñu ñu mer coow li jóg waaye li ma xam si yëfi nguur mooy soo demee ba sign contract ak compagnie especially compagnie bi nga xam ne compagnie bi nekkut fii soo demee buur a cancel that contract di nga pare na pour xare xare si international courts yi nii te weda gagné nga or gagné wulo di nga spend millions of dollars mm -hmm. litigation process boobu mm -hmm. so man uh, yefi samlex bi nu ko gisee moy ndox bu la gi lu ñoo mëna def moy mm-hmm. lu tuba bi di wax damage limitation mm-hmm. uh, contract bi amna contract bi ñu bari content si ci ñaa ñang sé ciow mm-hmm. ciow bi sa dafa bari pour ñeena ñi jox contract bi la nekkuñ Gambian pour ñeneen ñi lu ñoo fay bari na so man nguur gi lu ñoo def dal def -hmm man andana ko nguur gi pour ñu continuer ak mhm. because of a problem yi yu ñëw jur ci suñu mhm. waré contract. Euh, suñu waré cancel this contract. Mhm. Why nguur gi war nañu déglu ñu ñu sét naka lañu défé li ma wasi si damay limitation. price bi for instance. ni ñi sem information bi ñoo joy li dabaax di wax about fi local company ak foreign company. xamna ay ne dabaax businessman la so at some level mu ngey waxal am tam pour ñam tam ñu gëna am contract no it's very obvious because you Semlex bi lu ci nekk mooy. Ah, dafa am too many vested interests yu fa nekka am na ño xam ne ñu ngee wax from a very uh, independent viewpoint waaye ñu bari si ñu gën a bari wax si yëfi Semlex bi dañ si am vested interest. so yow doo mënuloo nekk advocate at the same time nga nekk somebody ki nga xam ne nga am interest and issue at least war ngaa disclose sa interest. waaye am na ñoo xam ne dañ xam ne because pristine ñàkk na lii. ñoom dañoo ñàkk a xaalis ñu. jóg fii bugg a bundu xatal nguur gi mhm. amin nguur yi war a jox nguur gi some space especially in man gowma ñu dee wax ne waa nguur bi luñ fi fekk yëpp yaay jamee ko def waaye bii mhm. ñu ngi dem mhm. millions of dollars si contrat yi nga xam ne yaay jamee nguuram bi ñoo ko def ñoom seen bopp ñu cancel ko ñii suñ ñëwee cancel beneen problème la moo ici ànd naa si ne Gambian companies war nañ leen a jox si mbiri contracts yi. Mm-hmm. waaye Gambian eh, ñu ngay blame Semlex ne Semlex ah, dañ def contract yi nga xam ne ni ñu ko doxalee baaxut. Mm-hmm. ban aaya si alxuraan moo wax ne Gambian contract yi yëpp luñ dee Gambian companies yi nuñ dee def doxalee dafa ànd ak yoon. Mm-hmm. am nañ fi ay Gambian companies. Gambians ñoo ko moom. dugga contract ak nguur gi. ñu yaaxal luwaa bi def yoo xam ne sax dafa wàññi koom-koomu nguur gi. so su ñooy discuss issues yi daal. man li maa wax mooy nañ fair waaye just because da nga am interest si mbir bi ngay bugg a créer fii coow man àndu ba si loolu lu ma jaaxal because dafa amoon benn task force bu gars yi taxawaloon mm-hmm. kii ma ko doon chair Amadou Sané of course Jawata uh, mu ngi fa woon ministre bi ministre of communication Biden former mm-hmm. mu ngi fa woon ak uh, Ba uh, Tambadou mooy minister of um, justice so lu lu ma jaaxal mooy ne ñoom dañu wax ne dañoo def bit between Semlex ak Pristine non non xaar xaar ma ñëw xaar ma ñëw léegi Pristine ñoom ñu somit seen seen seen seen seen boss waaye Semlex bañ ko Semlex dañ ne Gambia government bi suñu waree jox contract bi Pristine den ñoom dinañ dinañ dinañ def charges yoo xam ne dañ ko defal nguuri Gambia bi loolu la ko def si loolu yow yaa ngi ak nit anaa nga njëkk a génn si contract boobu boobu balaa ngaa wax yëfi bit mhm. nguur gi foog naa yëfi cuune lañ def xam nañ ne yëfi cuune lañ def moo tax ñu continuer euh, Semlex loolu laa ko gisee so maanaam yow na ko gisee ñoom seen interest lañ nekk di nguur bi interest yi Gambien si lañ nekk di xool wala ñoom ñi ñoom ñi nekk si nguur bi non ah, mënumaa waxal nguur gi waaye mm-hmm. waaye dama gis ne nguur gi dañ seet mm-hmm. li nga xam ne mooy wàññi seen coono. Mhm. ak wàññi coono réew mi. Mhm. because wàññi coono ko suñu yóbbu Semlek suñu yóbbu government court nekkul ne Adama Barrow lañ yóbbu court. Mhm. Gambia government la. te su fi Barrow génnee sax te case boobu jeexul dafa continuer. suñ gañee ba tey dañoo fay. ok so docteur noonu laa ko gisee. sa gis-gis sa gis-gis si wàllum contract bi ma wax nii rek lan mooy sa gis-gis si loolu. Um, jërëjëf Ansu mm -hmm. commencé la ka di mal tong su mm -hmm. kono al di al ka al mal al, al badingol tabax bali Ansu anekte iswa ci mal konton na ka foko muruntanang ko tegtele bi pour nale kacha bi mhm. gambia Gambia fengo kool mi metama kamba ko mhm. bi na kacha ma tilindila semlex mm -hmm. be yakala mutale ko lu ngol ko man fin tele ka foko um, id card wolon carte mi alon ko banque ɗigo ñande kasoto pour kela banque ɗi ya tandi ko e ba kela kemenani anin talludu jama bal finira ka fo ko um, e man song price o bawa siyata le gambe ndemal ta afford nola bari ya di company fana mina pour produce wol fana mo demal ɓe je um, e hakkilo um, uh, tara e hakkilo e je bawa company lo mi alon ko e to man tara diaring um, mbe mburna nek to ñaatoɗo manin ka fonin mani ka kaŋola pour al mbaɗi mani ko mil ɓe sokono alsa moyn ka min fo mhm. way man bala ma commencé ma buga clarify rek for the sake of clarity mhm. ne man ama benn invested interest mhm. man duma business man pour mu leer waaye foo ma start tamit bëgg naa laaj Sabally benn question because dafa mel ni Sabally am na lu mu fi wax boo xam ne man logic bi ah, dama ko question moo mm. ne su fekkee ne there was a valid contract between the Gambia government and Semlex mm. which was apparently signed in 2016 mm-hmm. government su ñëwee ñu contract boobu noonu ñu gis ne contract bi is still valid mm-hmm. why are they calling for a bid pour nit bid to get another contract why mm-hmm. loolu one question la secondly gis nañ second contract bu government bi sign in 2018 2017 ana contract bu gars sign on 2016 man I want to see that contract dama bëgg a xam moo contract boobu noonu ak contract bi mhm. what is the difference mhm. lan moo nekk si contract boobu noonu ndax contract bu am na ay provision bu am ne Gambia government mën nañu pull out of the contract loolu laa loolu laa bëgg a xam because soo readee contract bu es bi mhm. dafa wane that contract dañ ko cancel loolu mo nek fini ne mo mo fi nek mhm. ne this is this is the new contract dañ mhm. ko cancel because of mhm. contract wo lu fa nek favor would both Semlex and the Gambia government legi man I want to know what's in that contract dama xam ne different between contract a contract bi ni but so ñewé man suma gis-gis si Semlex contract bi moy ne ñaari <laughs> ñaari mbir la non ba di nga ñëw di nga ñëw ñaari mbir la ben bi moy ne man eh, first of all man buguma. man suma su ma gis-gis mhm. lu mel ni ID card mhm. responsibility government la mhm. te soo demee bitim réew réew yu bari yoo xam ne ñu ngi fonction maanaam ay Congo dañu am ne fonction duñu naan yu noonu doo mën a jël lu mel ni ID card sovereign document nga koo outsource to foreign company te even Belgium boo xam ne Semlex foofu lañ nekk. di Belgian government du duñ a xalaat. nguur bu ko def arama ñëw arama ñëw sax léegi léegi docteur léegi nguur bu ko def arama ñëw arama ñëw non arama ñëw because loolu nekk di wax ndax ndax tamit ndax tamit government Gambia am na financial capacity. non non gis nga gis nga lu ma laaj fi nii mooy ne man I don't believe ne. we don't have the capacity, both human capacity mm-hmm. ak money bi. Understand? Mm-hmm. Government ñu ngi make a lot of money. ñu ngi laa wane jaari Elon Musk 800 million dollars every per week. Mm-hmm. ba pare Gambia government. am nañ capacity baa ngi fi. nga yi technology yi nii léegi costul dara. Mhm. understand léegi yow naka ngaa jëlee contrat tey benn dëkka bu serious mhm. du jël something like this sensitive info nga ko jox an african tubaab mhm. réewi tubaab benn réewi tubaab du jël seen ID card ak seen passeport because nii nekkul ne ID card rek la de bu ko dafa ne diverse documents soo readee contrat what those those documents mun naa nekk driving license mun naa mun naa nekk passport mu def def ne diverse ñu ngi focus on ID card mun xamuñ because we are going in for boo xam ne Afrique suñ bëggee dem foofu dañ war a gom suñ boppa lu ñu war a jël suñ yi ni contrat lu nekk ñu ngi ko outsource si tubaab jël ñëw jël ba pare jox leen ay soo jegee provision yu leen gars yi jox soo riidee contrat bi da ngaa mer moo laa wane contrat bi is a lose win negotiation kenn moo nekk bi mooy Semlex kenn moo ak Semlex ak Gambia government ñooy win ñun askan wi ñoom ñooy luus. bu ko ñu ñooy sànni contrat boo xam ne daf ñoo affect. affect suñ doom yi affect suñ sëti contrat bi so sa sa jàngat da nga bëgg a wax ne tamit kon Pristine waroon na leen di jox chance bi Pristine amoon nañ capacité bi. Pristine am nañ track record bi. Pristine sa sa xaar nga ñëw non nañ Pristine ticked all the boxes. one is a local Gambian company. Pristine xaalis sa sa xaar ma ñëw xaar ma xaar Filen lañ ko war investé e. mhm. clause bi mu ngi laa woon ne mhm. si clause si contrat bu mhm. SP ne ne ne ne Semlex am nañ ray without restriction pour any money buñ fi meeg ñu send out of the without any restriction et par duñ pay tax be pare Gambia government mo leen be pare ba pare ñu leen liggéeyal sax so be provide and paid for by the Gambian government ba par any land bu ñoo use si dëkk bi or any facilities Gambia government ko provide free nit ban nit ku correct mooy sign façon contract yi. non mention part. so pristine, am take ticked all the boxes. understand Pristine had the capacity. had the track record. Pristine is a Gambian company. dañoo employ Gambians. et par xaalis bi fii lañ ko reinvesté. in young people. The pristine had that track record because pristine was paying for many students to go and study abroad ñoom study nañ ba pare. because pristine was was anticipating ne. li was gonna happen and they prepared for it. mon dajé na students yu daje naa daje naa daje naa ay few students yoo xam no sama sama they were sent for by was paying for education preparing just for this what, are they doing? Ñu ngi dem di di and they were supposed to come and work for the Gambian government. Even su as a Pristine sax amuñu woon capacity bi. Pristine together mun nañ nañoo work together with the government. government. to make this possible waaye man suma gis-gis. ID card national sovereign documents like. yo léegi léegi docteur dañ ko gàttal léegi dafa melni dafa am leneen lu ci lu ma su den. li ñim ñep ñim ñep am nañ ko. ñii duñ ko fi waxee rek xam naa programme bi du jël nañu jël si mhm. waaye ñun ñëpp xam nañ lu xew ah docteur da nga ragal sabali waa léegi waa wax def fii ne I don't think ne mun naa substantiate claims you don't think yeah no because man Pristine contract bi moo I was in the system mhm. xam naa lu xew mhm. Pristine I have nothing against them and uh, ceteris paribus all things being equal I'd rather jox a contract to a Gambian company waaye nga nekk a Gambian company is a very wary pour ñu jox la ay contract you should be able to deliver Pristine waxoon nañ fii ne dañoo defar biometric ID card ndax defar nañ biometric ID card waaw léegi ma laaj la benn nga ne dañ am capacité bi da da Pristine defar nañ fi léegi ma laaj ma laaj la question ndax ndax ndax tàmmuñ la non aramañu aramañu ok ok léegi léegi léegi léegi Pristine defar nañ Gambia fi biometric ID defaruñ ko sabali sabali wala nga am sa bi Pristine defar nañ fi biometric ID card which was a serious serious disappointment. now the point is here. su dee dañoo wax ñu jox Gambian companies contract. nañ make sure ne nangutoo yu ñu ak nguur gi nañ doxalee noonu. Pristine they had failures. in the past contract te loolu benn rek la boobu laa see em nag. waaye the point is rek nañ bàyyi non non bàyyi ma ñëw bàyyi ma ansal naa la ko noppi parce que bëgg naa ko ansal xam nga ne Pristine dafa waa léegi waa léegi sa sa saara léegi léegi ok ok SAP mu ngi bugg a ma answer a binary question. is yes or no dama laa wax ne. that's a great nguur gi ndax nguur gi ndax nguur gi ndax nguuram bi. ndax create na pristine the right environment pour produce. we don't know what were the undercurrent for that happen we don't know. waaw ok ok. waaw it's good ne it's good problème capacity lañ amoon. waaw problème capacity lañ amoon so duñ mun a assume ne rek. just because you are company am nga capacity. ok ma laaj daba daba daba next question bu ma la bëgg a laajte. daba non non non non non daba daba nañ ñëw fi ne daba non daba nañ ñëw rek nañ ñëw si waxtaan nañ dem if not time bi yëpp dafa jeex you um, um, nii gis nañ fu mu nekk nii Semlex jox nañ leen contract bi. sign nañ lan nga foog ne. loolu ñu mën a def ba gàmmeen si seen naxar because man ñu ma dee dégga mooy ñi nga xam ne ñu ñoo xam ne mënuñoo maanaam seen salari sax ah, soo ko xoolee loolu jege na ko trop lu si bëri lu gàmmen si di ñaxtu lu gaa yi di complain mooy fii bi yow yow la nga foog ne mooy solution ndax foog nga ne government bi fu mu nekk nii right now ndax still mun nañoo dellu back change fii bi wala yow noo ko gisee. waaw ok man lu ma gis foofu moo nekk ne. Mm-hmm. Uh, xaalis bi man dama ne woon money no matter how expensive it is. Mm-hmm. nañ bëgg di ñaan yàlla mu may ñu wërsëg. bu mm-hmm. ñu am pour fay for that service. because xaalis tam lu njëriñam mooy ñu spend. dëgg la dafa for a majority of Gambians. Mm -hmm. Because we receive salary thousand five hundred dollars is, and then you have a family of seven or eight, mm-hmm. I expect new new ID card and I know very soon. Mm-hmm. police immigration dañ go use as a strategy to make money out of people mooy. put checkpoints everywhere and deliberately ask you for your ID card. Mm -hmm. So amut ñu either they collect fifty dollars or hundred dollars from you. Mm -hmm. So people will be pressured to go and do whatever it takes mm -hmm. to get the ID card. That's one. Mm-hmm. Why man fundamental looking at important It's not about the money and I've said this. Man su how how secure my data is. Mhm. moom a gën a valuable than even the money that I'm gonna pay. Daba waaye yaa ngi jox sa data Facebook te xam nga. non xaaral rek non xaaral. non ah, Facebook right now sabali nañ d'accord xam nga mhm. mhm. of security amee sax with regards to my personal data. I can always go back and claim. and Facebook xam na ne billions dollars. mun na ko foog mun na ko cost so they will do everything possible. to make sure no system is perfect. break of security no xaaral rek sabal nañu nga dañu fenn. non xaaral rek xaaral jaay sa data bi bla wax mbo. non xaaral non xam nga data bu ñëw jaay non xaaral rek. boobu is different non xam nga boobu is different xam nga boobu bokkul xam nga bii Facebook lu ñu def. they use your they look at the things that you know, normally like on Facebook. Mhm. and they ah, deliberate waaw xaaral rek non xaaral non mu clair. bokkul non non non bokkul non bokkul ñu jaay ko. non jaay bi mooy jaay bi mooy. de de non xaaral non jaay bi products ah, compagnie si nga xam ne day du products mhm. pour ñu mun laa get with regards to advertisement waaye xam nga ñii la ma tax seen bos mu garaaw mhm. ñoom they deliberately and they know what they were doing mhm. they do it deliberately ne this is what I'm going to do damaa jël information ni ah, daba ma jaay ko Momodou Sabally waa léegi xaaral waa léegi daba daba daba ñëw straight to the point because dafa mel ni um, Comoro Island ñoom ñi nga moon di same kind of problem about mm. seen passeport yoo xam ne ñu ko jox ñoo xam ne ñoo xam ne duñ duñ doomi réew mi ndax yow foog nga ne Semlex dinañ def di same thing because Semlex ñoom ñu ngee bañ ne ñoom mosuñoo def loolu te tamit am nañ problème ak Belgium <laughs> non mosuñoo def loolu mhm. man du ma mun a di ko loolu dafa yomb dafa ndoxee trop mhm. pour mu nekk défense mhm. na gars indi substantial tangible evidence pour wane ne defuñ loolu das one two xaaral rek they can go to the international courts to clear damages from the Comoros government su nekkee dëggal a gaa yi nekk mhm. parce que traité nañ fi Gambia government ne dañoo dem court mhm. su Gambia government tamit def contract because they believe ne they have a valid contract with the Gambia government mhm. so why are they not doing the same with all these countries te ba pare dëkka yi nii yëpp nekkuñ benn dëkka all these countries are different countries lan moo tax ñoom ñëpp ñu nekk di tuumal with evidences mm-hmm. ñoom ñoo ñoo nekk di génnee evidence Reuters has done a report about that mm-hmm. uh, the Belgium police dem nañu raid seen offices they took over their computers all that mm-hmm. Europe di nga wax ak lu nekk but ñëpp understand di nga agree Europe système moo fa nekk di dox government du mun a tub rek mu dal sa kaw mu ñëw tuuma loo xam ne defuloo ko loolu Africa fii rek la mun a happen su nekkoon ne African governments moo ko def mun naa wax if you go to Belgium mm -hmm. Belgium nekkul dëkk boo xam ne like you just get up and do whatever you wanna do. not di. sabali sabali sabali yow yow na nga jàngatee lu ma lu ma la ca dabal rek. mooy ci wàllum maanaam naka la gars yi mën a protéger li nga xam ne mooy suñ data bi ak suñ of course suñ information. yoo xam ne very important because of ten thousand. li ma wax mooy euh, laaloon naa si tuuti si njëlbeen bi. ne sign nañ contract agree nañu bi is not perfect. Mm-hmm. Egypte ñu munoo Gambia government sa mhm. depuis time yi Jawara nag mhm. nga contract yu bon rek ak mhm. protocole yi nga xam ne <laughs> xamuñ boppa bee geen bi so léegi in this case as guess part as because of part of the new democratic dispensation nit ñi joo jog nañ coow nañ am na ñoo xam ne as I dañ si am vested interest man ñoo ñu duma leen déglu waaye am na ñoo xam ne ñi nga wax ne euh, genuinely I mean the price for instance dafa high man economist la liggéey naa budget xam naa ne is a revenue measure waaye 450 bi dafa bari so man li maa wax mooy pour government bi we know something damage has been done contract bi is not all that good sign nañ ko fine nit ñaa ngee complain sa citizen yi ngaa represent at least man li maa wax mooy government war nañoo mun a accommodate nit ñi seen seen concerns yi data security for instance price bi ñu wàññi ko dafa cher waaw ba man su ma xalaat euh, mooy ne mm-hmm. euh, si mbiri data bi mm-hmm. it's quite important mm-hmm. although gis naa si contract bi ne after the five-year contract, mm -hmm. possible extension for another two years. Then okay. you hand over everything technical know-how, be local authorities, technical information, mm -hmm. be mm-hmm. infrastructure back to the government. Mm -hmm. But what about if there's a breach mm-hmm. of data privacy mm-hmm. in between, and which you realize the Semlex is there's a liability on Semlex side. There's lulu cover oko. One action the government demonaje. Especially let's say you dam after three, you guess okay Semlex has really neglected or through negligence um, swing database out there mm-hmm. mu mu fall into the hands of a party mm-hmm. or in the wrong hands mm-hmm. ban action la Gambia government mën a jël boobu noonu man say contract and which which is which which is léegi su ma fu maa ñëw mooy ne gis nga ñu ngi trade in very dangerous area government bi ñu ne 450 la ID card bi di cost gis nga suñ ko bàyyee mu jaala license dañ ko yóbbu 900 suba passport dama na 3600 dafaa dem 7 to 8000 dollars lii fii lañ war a woon government mais lii duñ ko nangu 450 bi it's too expensive. Because people cannot afford it. Semlex si boppam is a criminal company. Mm-hmm. man maa ko wax. because a criminal company waaye mm-hmm. because it's mm-hmm. been ñu ngi leen a investigate on so much so many criminal charges. even with Congo nu dee operater. di deal with African leaders yoo xam di leen corrupt di leen di leen di leen di leen. because soo bi si boppam. it's got the fingerprints. so xam nga dara soo ko riidee spirit bi si boppam. soul bi da nga fa dee gis ne soul <laughs> xanaa saa la wala sool bi sool yi soo ko soo ko riidee rek soo ko riidee dafa mel dañ ko binda ñoo jox ko suñ ngaay suñ ngaay sign foofu lañ utee asian yi asian dañoo read word by word word by word word by word dem lañ ñëw waa ñun dañoo rek fan laay sign ah fan la fii la ñu sign ñu pare sign rek lañ mun nag waaye da gis ne soo riidee kon na bi si boppam spirit bi si boppam moom moo ko doon read

mun nañoo am si problème ak Semlex te mm-hmm. Semlex obviously ñoom duñ mun a duñ musa in mm-hmm. any circumstance because it's a business company mm-hmm. so fu mu nekk government dañ isi Semlex ne ne kaa leen invest si eh, eh, suñ document suñ eh, document naka procurement kaa leen invest on a sang so Semlex so even société bi sax ñu ne xaalis bi li fi bi naka sixty 40 la 60 40 that is 60 percent dafa dem Semlex 40 percent ñëw but si 40 percent boobu noonu mm-hmm. ñun ñooy fay anybody ku liggéeyal Semlex mm-hmm. ñun ñoo koo fay mm-hmm. Semlex duñ fay tax rent ñun ñoo koo fay ñu doon jox laan non ba docteur fay boobu noonu nekkul xanaa du normal salary rek comme normal salary bu gars yi di fay local waaw ba léegi sax waaye it's a company ba pare ba pare ba pare si contract bi it is mentioned ne Semlex ñoom ñu ne dinañ jox allowance non non loolu non non loolu yenn façon allowance la comme travel allowance you know training allowance bana maa laa wax ne mm-hmm, léegi mm-hmm. Gambia government ñaa war a fay di workers ñoo xam ne famille yoo ngay sa compagnie mm-hmm. ma jox la pour nga léegi nga ne man li ñu fa la faa léegi maa leen a ba pare ba pare naka tudd sa permit work permit you guys yi seen léegi pour ñu work permit free la ñu duñ fay da nga gis ne contract bi anybody ku contract bi man dinaa question sa patriotism apostolic. non uh, uh, <laughs> docteur <laughs> uh, clauses yi si contrat yi maa ngi ko doon read comme li nga wax fi government di forgive taxes ak yooyu. Mm-hmm. xam naa ne suñ gars yi nekkuñ bawdoo mm-hmm. waaye góobu ma ne na sax nañ <laughs> non nekkuñ bawdoo waaye góobu ma ne nekk nañ cuune to the extent where mm-hmm. dinañ give away revenues just like that man li ma góom bi ma ko gisee I mean naturally trigger bi is like what what's going on waaye xam naa li ñoo def foofu mooy foogoo revenue bi as part of a uh, reduction of the cost I'm not a government revenue accept aspect bobo, mhm. nañ ko recover within this 450 buy ñëw am nga lu gën a i am going to get a So soo demee section 4.4 um, mhm. mhm. mu ngi the ne government bi mu ne commitment of SEMLEX foreseen in this article 4 shall come into force only when all legislation and all regulations imposing a legal obligation to acquire official documents and setting the fees payable for obtaining them has been duly published in the official gazette. Mm -hmm. Meaning the government dañoo enact a law to make it an obligation mm-hmm. for every citizen to get an ID card foofu la kii doon ñëwee di wax ne mm-hmm. da nga nekk di riite wante police yi mm-hmm. léegi man am na ñu bari ñoo ne balaa maa fay 450 ci Semlex bàyyi sama police yi wàcce si moto ma mhm. jox leen twenty five wala mhm. fifty ba ma dem suma yoon waaw ok dafa am dafa am leena ma jeexal mooy d'abord mm. euh, Semlex um, there was a time contract bi bu ko gars yi waroon a bu gars yi waroon a continuer ak contract bi euh, Semlex ñu doon wax ne Gambia government dañ am mooy problème bu ñu doon am jànkonteel ak élection seg yooyu loolu moo tax ba continuer wuñ euh, contract bi léegi bu ñu laajtee Gambia government of course minister of um, justice Biden lu mu wax moo nekk moom dafa ne pristine ñoo doon ñoo bit pour pour affaire bi soo ñoom ñaar maanaam Semlex ak euh, ki nga xam ne mooy moo moo foofu government ni Gambie bi seen wax dafa uti yow na nga loolu si statut bi nag nga foog ne loolu is good. <coughs> <coughs> Mm-hmm. if you talk to Pristine also they tell you they have a valid contract boo xam ne dafa ron. up to contract boobu. laa bëgg a bu doon contract ok. non ah, Pristine ah, dafa dem ba 2020. waaw mm-hmm. ñoom de basine ne. like the former government, the way they terminated their contract mm -hmm. wasn't right. Come look, Simlex don't uh, excuse of uh, this government. Lu gaa doon jéem a justify ñoom tamit. Mm-hmm. so ñoom ñaar ñëpp su nekkee ki dafa am contract ba na fa dem ba 2020. Mm-hmm. and they still believe it is valid. Mm-hmm. ok dem code bu government di bañ Pristine mun naa yóbbu Gambia government code. and man su ma gom-gom mooy ne. I believe that they have strong case boo xam ne mun nañoo win that parce que ñëpp xam nañ situation bi because yéen bi ngeen am mooy. di complain but government also they had complaints against Pristine. because because because contract boobu was problematic. just like this problem. contract is problematic. minister justice bi mu ne naka <laughs> president Jammeh former former président Jammeh non xaaral ma ñëw xaaral daba former minister bi sorry um, current minister bi minister of justice dafa ne former président Yaya Jammeh um, nu mu doon handle uh, contract bi was very wrong loolu moo tax ba Semlex di complain nii dañ leen war a contract bi loolu non mooy xam nga mooy li ma war a agree ak this government African Petroleum dañu amoon contract ak government Yaya Jammeh loolu moo nekk dëgg bi government bi xanaa terminé bi contract boobu dem international court bi pour try to justify reasons lu tax gars yi terminé that contract so da nga jàpp ne xaaral rek xaaral rek xaaral loolu wax naka la xaaral rek xam nga loolu investment ma déglu ma non xaaral loolu mbuji déglu ma xam nga ma la ma ma intéresse xew mooy government dañ dellu waat si contract boobu xam nga ma la ma ma intéresse xam nga ma la ma ma intéresse d'abord waaw government lu ñoo explain mooy xaalis bu gars yi di fay mhm. legal fee pour Simlex mhm. if they can do that for African Petroleum mhm. they have to come back to the sabali sabali man bañu ma loolu yëpp that doesn't stop government mm-hmm. from paying lawyers yi mm-hmm. and they've already paid those lawyers whether they withdraw the case or they didn't withdraw they've already paid so d'abord yow sa stand moo nekk man suma gis-gis mooy government dañ war a push government bi mm, dañ ko war a jox pristine the interest of Gambia I'm not saying they give it to pristine pristine waaw waaye nañ def ba pare tamit leneen tamit lu tax mm-hmm. sax de su give it to pristine mooy maa ngi koo sabal mm-hmm. Mm-hmm. this is not man suma making man faale ma I have contracts in government or not mm-hmm. understand nga waaye dëgga bi mooy ne this is a law demal si Gambian constitution the public procurement is there moo empower government pour mu jox su nekkee ne two companies ñoo nekk di bid kenn ki nekk Gambian kenn ki nekk non Gambian dañu war a jàpp waaw dañu mara fi amul dama déedéet ñoom ñoo ko wax déedéet ñoom ñoo ko wax sabal sabal bi amul déedéet amul non sabal sabal bay man waxuma ko de government moo ko wax man waxuma ko non man nekk man waxuma ko de government moo wax ok non waay sabal waay officiel moo toog waay sabal haral media mu ne minister of justice non haral government officiel moo toog man waxuma ko because I'm not part of government I wasn't there so if a government officials come out and speak to Gambians ne ne dañ beneen process dafa am. man loolu laay jël Prism summit. bañ a summit so man that's what I'm going to take. responsibility bi mooy moom mooy li ma la wax rek. responsibility bi pour man moom la waxal ni dama ne. Hmm. ñu ne Prism naka Symlex dañ bañ a submit. ñoom dañ wax ne. Uh-huh. they have a valid contract. te duñ ko mën a wax if you go to Princeton tamit. Mhm. ñoom tamit dañoo sukkandiku ne they have a valid contract until 2020. because Jammeh dafa dafa terminate that contract using power and force. they can tell you that. so reality bi mooy ne man mhm. li ma gis mooy. Mhm. dem na ñëw na it's not about Princeton it's not about Simlex. but it's about the interest and safety and the security of Gambians. seen data. and pour man. for now. not Simlex no government can convince compagnie bi nekkut ak criminal cartel. so Sabaly sa gis-gis because say lu ma wax moo nekk fu mu nekk nii still government bi go ahead either ñu breach contract or something man li ma xam mooy mm-hmm. Mm-hmm. Pristine amoon nañ contract mm-hmm. contract bi had a problem both Pristine and government were at fault there because Pristine nekku doon biometric ID la promise nit ñi ñoom ñoo ñëw toog si télévision la IDB is not biometric, which was a serious disappointment. Mm -hmm. The other issue, even you don't collect a revenue, then there was a problem in all these issues. Mm-hmm. But yeah, Jame mom tam true to his colors, mm-hmm. Hamut Lua. This mm-hmm. na nengi lu ñoo def correct rek mu dem daanu seen kaw yóbbu waa ji jail is not proper. Waaye kenn du mun a toog fii man du ma toog di seetaan ñuy blame government for that problem. Two-way street both government and pristine were at fault. so come to Semlex here. Mhm. Semlex they had a contract moo tax biduñ. Mhm. te man gom naa ne. dis mhm. nguuri Adama Barrow bu ñu ñëwee ees. amoon nañ intention pour jox contract bi pristine. waaye bi ñu demee ba contract bi implication bi. fa gis ne lii daal would be greater than the benefit moo leen dugal si lii. man I believe ne nguur gi hands are tight. fine does that give them excuse to go to bed and sleep mm-hmm. no mm-hmm. damage limitation wàññi cost bi assure nit ñi protection of their data mm-hmm. monitor activities of Semlex loolu sa jàngat si loolu yow la nga yow pour yow they can just go ahead with contract bi wala ñu breach ko I think they should have to uh, reconsider dañu war a do go back to the drawing board ñu seetaat contract bi no di fact ne di fact ne di fact ne gars bi na nañ ne the previous one understand what I'm saying? Which means the previous contract was it was understand mm-hmm. this is a brand new contract. Mm-hmm. government bi ñoom ñoo def lu leen neex rek. Mm-hmm. ñu si ñu contract bi nii. understand léegi ID card bi ñaari mbir la. criminal company lañ ko jox boo xam ne our data is not secure. si company boobu noonu because they've got a track record. of engaging in criminal activities like selling passports. ak to very negligent with people's data. that's one. two ne dañoo ñoo toog gis ne all our national important national documents mm-hmm. mu ngi si loxo benn company mm-hmm. gis nga um, lu xew with Gamtel mm-hmm. I think is the gateway that Swiss company bu government bi lu tax ñu contract seen terminate seen contract although it was lu tax lu ñooy bu ko la ñoo ñu def waaye de am na lu gaa yi def de ba data nekk free fii nii ba Gamtel ku nekk di am free léegi suñ toogee fii ba gaa yi duuloo Semlex ñun xamuñ la la Semlex di def what that gis-gis the government really contract contract la rek contract did not fall from the sky mhm. the government dafa daf see pare lu nekk mhm. su fekkee ne they are really mhm. su fekkee they are really working for the interest of the Gambians nekku ne seen own interest la da ngaa déglu Gambian yi ñu seen naka la ñoo mën a seetaate mbir bi boo xam ne Gambian si lu duñ si toro ëllëg ok leneen maa ngi ñëw si ñum daba ok jos nga wax mooy ñu ngi gis banque yi gaa yi ngi def i billboards billboards yoo xam ne billboards yaa ngi am ay waxi ne simple euh, Semlex war a ñoo continuer li nga xam ne mooy um, pour di issue ID cards yi yow na nga jàngatee loolu ñu ngi gis government bi mhm. um, um, police gars dem di wàcce seen billboards or mhm. nga démocratie mhm. people communicate through public debates through demonstrations through billboards it's all part si democratic process bi la nekk because citizens suñu amee loolu na xari war na ñoo ko mën a génnee communicate to government criminal mm-hmm. so da nga ne su fekkee ne government bi lu ñoo oote digga la mm-hmm. ne political space is open mm-hmm. civil liberties are protected there's freedom of speech ne eh, we live in a new democratic dispensation waruñoo allow police yi di dem di wàcc that reminds me of a police state na gars yi ñi génnee seen billboards it's to you or me pour nga ma read ko accept Lufagaya Binda or not. Mhm. But once man is part of democratic process for every citizen, mm -hmm. like bank you anybody, mhm. mu express bopam. Mhm. So lang gane hontesa, ñu wolé march pass from Westfield to traffic light in the protest against against Semlex, against Semlex contract. It's all part of democratic process. So man si man I think it's good ñu def ko. Okay. Daba, sa gis gis lolu. waaw ah, man su ma gis-gis mooy man soo man nag. <laughs> non maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa nii la <laughs> dama. man su ma gis-gis I support the cause 100% because sama lu tax. Mhm. business ah. community local business community. non du <laughs> loolu sabali yow dama wàll Gambia man su Gambia sax man I mhm. Gambia. and ma bit. Mhm. and in la wax de damaa yëkkati loxo. all the bits yu ma def ma wiin. squarely 100% kenn du la musa wax ne. dama dem through the back door amut. daba boobu mu tànnee. waaw non man dama beneen ne. ñoom banque lu gars yi def is their constitutional right pour ñu def ko. am na lu happen si dëkk bi d' accord si and they want to communicate with the people. is it ne non benn question waaye boobu naa ko la ci saabal bul waree continue. so beneen bi mooy. police lu gars yi def. is criminal. because it's just like nit ku am private property mu defar ko. nga ñëw délibéré li nga yaaxa ko. the way you charge a normal person for for for for for for for comme lu gars yi charge docteur Diané. criminal hmm. domaine loolu la war a charge police yooyu noonu dem def loolu. Hmm. because they all committed the same crime. understand because foofu public space la. Hmm. nekkul a private property. it's a public space non in fact non from NRA. ba pare da ngaa national road authority waaw. government is collecting tax money from that billboard. They are making money. So ñoom suñu xamee ne loolu dafa criminal why should they take money from the people that are doing it. So police yu dem foofu noonu I don't know who gave the authority. whether it's the police command or some comme lu ma dee wax rek. some business non a rek sabal. sabal police mooy dof def defi dara te amuloo commande. police yooyu noonu. dañ leen war a charge the same thing lu gars yi charge Dr. Jani because they all committed the same crime te man loi bi lu ma foog mooy kan moo leen a charge non police yi mën nañoo charge gars yi sabali xanaa police yi charge yi yi doon fire sa gis-gis si si si loolu noonu ci billboard si uh, to be honest and to be fair mm-hmm. man wax naa ne nguur bi in this case their hands are tied and mm-hmm. uh, uh, dama yërëm nguur gi si bii mm-hmm. waaye su askan gi jógee ya, def ay billboards. dégga dégga dégga ah, ah, ah, police yi su dee ñoom ñoo ko wàccee parce que man gisuma ne ñu wàccee ko. su dee police ñoo wàccee loolu loolu dafa ñaaw. te gis naa boy si ñu ngi use that opportunity to make a comparison. ñu ne xam nañ ko fi doon wàccee billboards. te kooku mooy tudduma la mbo. so fu mu nekk nii xam nañ ne game bi fu mu nekk nii dafa. nguur gi nguur gi nañ bàyyi seen xel. président Adama Barrow na bàyyi xelam si loolu su dee ñu ne lu waay di wuyo def ko nuro su dee démocratie ngay oté bal ni ñuy expression seen boppa tam dina waxaat tam so buge nek activist nekal activist waye do fi nek businessman si bi bëccëg nga sol mbubi activist di gundu gundu gundu hatal nguur gi boobu tam duñ ko fi nangu waaw moom moo nekk ñett léegi léegi fu mu nekk tam tam buñ am tam buñ am bari wul so nañ dem si what's trending of course nañ dem si what's trending léegi fu mu nekk nii dama ko ñu ñu talk about uh, Mr Jammeh um incident bu fa am um, noo jangate Um, it's unfortunate ne xam uh, nga non man daal damaa was yow yow Mr Jammeh or Dr Jammeh is a fine citizen mm-hmm. Dr. Jane <laughs> fought mm-hmm. against dictatorship. Then mm-hmm. she sacrificed life. Now, um, lu ma wax mooy ne Dr. Jane Dr. Jane xam nga man lu su ma dee wax nit nag si yu baax bu baax bi laa dee ut. Mm-hmm. léegi bàyyi bu bon bi. léegi lu ma wax mooy ne Dr. Jane ñu ne dañ ko charge for criminal damage. ne dafay pipe naka golden lead. léegi ñu ngi ko charge a mm-hmm. long time ago mm-hmm. but he was charged uh, in absence ñu mm-hmm. ne he was at large kooku ñëw Gambia three months ago almost passé na three months mu ngi toppatoo soxlaam seen police ñoo xam ne daf leen ne romb si check point yi mu nuyonte ñoo ñoo ko def arrest ba ko naan xamuñ ne ne yaa ngi fi léegi dañ la te daf leen demee attaque ñoo la arrest moo laa woon ne is politically motivated mm-hmm. su fekkee ne dëgga dëgga nguur gi mm-hmm. lii eh, eh, eh, was not politically motivated um, naka a political party oh, mm-hmm. gis ne um, su fekkee ne lii was really serious mhm. like dañ ko we are following rule of law mhm. due diligence mhm. scatter bu mu jos entire Gambia lañ ko dem arrest ñu yóbbu ko ne ko dañ laa charge because of x y and z now when it comes to such things ma mënuma see wax because mooy ne ñoom nguur gi ñoo ko charge ne dafa yaa pipes man I don't know di charge bi naka lañ mee man lu ma fu ma waxee moo di nature ak ni manner in which he was arrested is wrong mooy ne nit ki ñëw na def na fi three mu ngi toppatoo soxlaam yéen a ngi gis ba mu ne sax gisee naa baroo sax de gisee jabari baroo sax ko dara ñu be dem dem suuli onkulam mhm. mu jógee si bàmmeel bi rek ñu dem arrest ko mhm. di ko charge mhm. meaning ne something is really fishy te man I condemn the arrest in that in that fashion d'abord quickly waaw non xam nga man lu ma mënta understand man euh, mënuma understand that company nekka di pollute suñ géej bi di yaaxa suñ jën yi di disturb ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu ba pare use public because ñoom fu gars yi suul seen pipe it's not their private property parce que loolu so yow su nekkee mënuloo charge the Chinese company mm-hmm. why would you charge citizens ñu nga xam ne ñoom gis nañ ne these people are destroying their environment mm-hmm. ñu ngee pollute seen environment bi mais mm-hmm. pare fi ngay def seen pipe because man nekkuma fa woon but I've had doctors spoke mi ne ñoom dugguñ si property bi day stop fu nga xam ne ni like foofu si géej bi la mhm. moo nekk ab bi mhm. loolu public space la mhm. loolu nag compagnie bi moomuñ ko and the fact that ne ñu ngee damee ñu ngee ñu ngee pollute the environment te loolu evidences are there nit yi gis nañ ko I've listened to uh, uh, an expert talk about this thing ak test because moom mu ne ñoom moom ñoom def nañ si test and he was trying to even explain the uh, the level of contamination with the water lu tax jëni ñu nekk di dee chemist lañu war a charge instead of doctor because lu gars def loolu was right and man I'll support it hundred percent parce que su nekkoon suma la wala close to my house I will do the same thing suñ ko def hundred times I will destroy the property hundred times because man suma wér gu yaram moom a gënal the few monies that those Chinese are going to make and few corrupt Gambian officials that's it period because the reason why Chinese yooyu ñu am doole understand nga so loolu moo war a génn fii nii because mënuloo sacrifice the health and living conditions of your people to the detriment of people who are doing business whether it's me or it's somebody else it doesn't matter lu important mooy people's health moo war a nekk number priority for government and the environment mm-hmm. Sabally sa gis-gis uh, to start with doctor Skatred Jaane ak ñoñam ñi nga xam ñoy OSN ooyee seen bopp activiste dañoo war a yombut anywhere even in America dañ <laughs> la arrest soo in fii inhumé ñi ñoo bla naa loolu dafa yomb why having na pare pour son aussi li te te def ko jar man man ku ci ku si bugg man defuma ko why ku bugg def activism in this case uh, you have my moral support mhm. why don't talk fi nak di ñew di joy si newspaper ci loolu dafa yomba torop da nga da nga da nga gor gor having said that wa suñ la arrest having said that nga bokk waaye bokkuma si gars yi. baara di nga dekkali dama ko war a dem sa gis-gis waaye ara moom la ma dem na docteur docteur ara ara sabali sa gis-gis léegi again ñi ñu ngi wane waat yëfi cuune yow docteur def na nii caaj nga ko dem na ñëw man gis naa nataalam ak first lady at the beach arrest loo ko foofu yëpp nga dem xaar ba fu moo dem suuli ji nijaayam loolu nag dégga dégga dégga is symptomatic of Yaya Jammeh tactics waruta xew Okay. Normal Mm Mwene, um, even so not arrest as an activist, uh, mm -hmm. it has to be done within the parameters of the law. Mm -hmm. While mm did, did not happen that way. Epada hmm. kam lu eh, da bahwa sebagai eh, ah, ah, ah. no no. Arrest mom arrest lah. Oh. Regardless of when you arrest. Moral angle bila ni. Wala ni move ni move ni move. Morally wrong. Okay, dem fake ko si si semet. Okay, sama. Legi fo ni ni. Ba na. Okay, mo Mwene, lu ma tamit Mwene. Hmm. Lu sa wa degala. Mwene se fake that pipe buga yaha hmm. was not within the jurisdiction or within the living of uh, property of um, Golden Lead. Mm -hmm. Then obviously that there is no case. But maluma amwene. Then mm-hmm. wara hamne fi Gambia la. Mm-hmm. Gambian si suñ welfare ak ñun ñoo war a jël moo war a nekk priorité te soo demee China suñ laa woon naka la ñuy traité nit ku ñuul donc doo bëgg a Chinese a nekk si digga bi waaye dañoo ñëw fii di jël Chinese si seen right understand o di sacrifice the rights of Gambians at the altar ok nañ dem quickly because fu mu nekk nii war si non xaaral xaaral non non non damaa yokk ak non non non lii c'est important because lu xew mooy non nguur gi nañ bàyyi seen xel. a picture of uh, Dr. Janes a picture a Chinese flag. flag on Gambian soil. loolu ñu ngi still what's trending nañ moom léegi fu mu nekk nii um, gis nañ uh, na na na na economic policy of course ñu ñu ñu continuer nekk fii ba 2021 docteur nu ko gisee. Ah, <sighs> anyways <laughs> économique économique moom saa ma si duggee rek problème rek <laughs> waaw damaa wax ne ne mooy ne um, Barrow lu mu wax Demba Barrow that was a coded message in it mm-hmm. mooy ne Barrow is not thinking about three years mm-hmm. Barrow transition <laughs> five years Demba it was very clear su mm-hmm. anybody who had doubts about Barrow's intentions to stay for five years. Mm. Demba he made it clear. Mm. waaye docteur nañ dem nañ dem si économique. waaw dañoo dem économique mooy ne man xam nga tamit Barrow ban justification la joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. because man gisuma any reason. Mm-hmm. lu tax économique war a nekk fii nii ba 2021 économique was supposed to be short term eh, eh, mechanism boo xam ne dafay ñoo ñëw. e solution la mo nekka sottama redi problem post transition bi there stability and by all indications I'm not a, awma access to military intelligence but nu ma gisee things I don't think it's wise put a combination bi I don't think it's good for the security of this country because normally what we see is that um, from evidence from many other countries. du dee baa si dëkka su ne yaa ngi am foreign forces ñuy stay long in your country especially kon ñun situation nu mu mm-hmm. te fu mu nekk ñu ngi yaa ngi gis ne économique info ñi ñu bari xam happy with their presence there mm-hmm. that's the fact. Mm-hmm. so da ngaa man man man I would have used am nañ an army. although I mean ñu ngi blame guy ne they were aiding and abetting them but who wasn't civil service was everybody was mm-hmm. so man si man lu def I'll repeat it again Luma wa waxoon lu tax ñu arrest mm-hmm. should need to have confidence of the army mm-hmm. for the security of this country rather than depending on economic 2021 okay double. okay man su ma jàngat foofu noonu I think it's good for Barrow but it's not good for the country in the long term. No, no, no, no, no, it's good for him because maybe Momo Ham personally. maybe confidence am des na tuuti and he believe ne like pour mu gën a toog gën a mun a def lu mu bëgg lu mu bëgg a liggéeyee mm-hmm. he needs a force bu nga xam ne nii soo ne ne like mm-hmm. there are certain decisions that he can take mm-hmm. without mu am any repulse against the decision that's one two lu tax ma ne it's not good for Gambia in the long term mooy because reality bi mooy ne like soo cegee like basically our military mhm. dañ leen relegate to the second level with regards to like functions yu gaa war a def mhm. nekkuñ comme di active like the way they supposed to do mhm. so in the long term ñooñu tam dañoo dem bee relax and maybe they will kind of bit lazy so even whereas ECOMOG mu ngee dem sax ñu war a ñëwaat it will take them time pour ñu ñëwaat back to this, the level at which they were. Yes, man, I believe that there must be security reforms. Mm-hmm. And because the military needs to be downsized, because I don't think the Gambia needs all that number, of soldiers. mm reality di mooy ne these are sensitive things yu nga xam ne if you have to do it. non sabar xaaral ma ñëw man suma non wax ma ñu daax a gars ma man loolu suma xalaat la. bi man déglu si nit ñi use that word anymore du ñu use downsize léegi right size lañ use. waaw downsize bi mu like da ngaa daax a gars yi. non sax nga miinut a lot of things that the Gambian mm-hmm. military can do, mm-hmm. like in other militaries. Mm-hmm. Gambian military can get into construction, mm-hmm. they can get into agriculture, they, they can get into mm-hmm. fishing. So government therefore invest in those sectors. Some of these guys, they don't just need to carry arm and live in the barracks. They can they can be in the agricultural sector and produce. They can be on the construction side. What is holding Gambia government you invest military am um, a road construction company boo xam ne is run by the military. Mhm. understand nga mhm. so all these government contracts. Mhm. majority of them can be given to to them. ñu nekk di liggéey so that way. di nga a small size bu but they are still in the military. but they are in another sector contributing economically and generating revenue. to fund the army. so dina dem time boo xam ne army bi financially independent from government. xaw ma ba lan mooy position bi Daba. non man non man downside rek la nekk. waay Sabali waay waay waay Daba. Daba loo wax foofu noonu ba wut agrément. non non non agree ak Sabali bu mu waxee ne the army will be financially independent from the government. Mm-hmm. that xam loolu noonu du happen anywhere. You see, the army is a public institution mm-hmm. funded by public money to serve the interest of the public. Mm-hmm. So once the army becomes financially independent from government. that is very dangerous. I understand. Sawale <laughs> ah, <laughs> sa stand. yeah uh, président Barrow kàddu yi mu joxe keroog démba mm-hmm. ah man daal xaal naa see tiit. Mm-hmm. tiit as in ah. why because. <laughs> non dafa ne dafa ne dafa bëgg a continuer ba. loolu wax ni dama si baaxul pour dëkk mm-hmm. because already xam nañ suñ soldaar yi lu fi économique nekkee gënalut leen mhm. fine in the beginning mhm. the majority of the public they were with government because lu docteur di wax ñu ngi accuse soldaar yi mhm. ne ñoom ñoo doon dimbale Yaya Jammeh xamuñ ne percent of soldaar yi sax victims lañ they were not not villains so nit ñi muñ nañ loolu ba léegi ñu ngi indi second year by now lu ñu waroon a gis mooy baroon dankan danka muy gën a jegeñ army bi like that confidence building process gisuñ loolu ñuy dégg ngay wax pour économique yi toog fii for euh, euh, for a five year period loolu man lu ma ko gisee dafa gën a alienate army bi mhm. army bi dañoo gën a gis suñ bo seen boppa ne you know bokkuñ si lii mhm. ba pare foreign forces si dëkki jàmbur mhm. baaxut óorul nekkul mandarga bu rafet dafa mel ni dëkk bi dafaa show a sign of instability man daal li ma foog ma gis-gis mooy président Barrow wax na lii démba na dem te daal waxtaan ak njegeenaayam mu mu soppi xalaat soppi ndoxin uh, talk fee for a five year period, I don't think ne, it's not in the long no, term. But how about how about how, how about how a five year and then still you get partner with um Gambian I mean, Munuta am you, you, you get am ansu. Yow li nga wax lolu munuta am. Suñ soldat yi they not happy. Kenn du content nga nekk sa dikka nga gis keneen muy ñëw jël di di garder sa président yow ñu daaxala si gannaaw. Loolu kenn kenn du ko bëgga. So nañ nañ seetaat lii both président Barrow lii nekkul mandarga bu baax ok fu mu nekk nii ñu ngi leen wax ne rek ngeen di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis ah, dañ leen bëgg wax ne rek ah, ñoo xam ne ñu ngi bëgg sponsor programme bi of course ah, ñu ngi about a um, lot of people yoo xam ne ñu ngi willing to sponsor the programme waaye lu ñu bëgg a wax mooy suñ first episode bi of course turnout bi was really good because ñu ngi about close to 30000 views which is really good season um, by ngi start si gis nañ ñu bëri ñu ngee ñëw uh, nan lañ ko jàngatee because gis nañ ne lot of uh, lot of the uh, most of the time sorry dañ lay gis um, xale yi mooy Gambians yi ñoo xam under age ak yooyu noonu problems yu bëri ngi lu bëri sax lu bëri dafa um, ma wax it's good because Gambia lu xew we mm-hmm. depend suñ foog naa I think 20 percent of our GDP mm-hmm. is from tourism mm-hmm. so which means the numbers really count but man I always think beyond the numbers fine the numbers are there mm-hmm. but beyond the numbers what are the other implications mm-hmm. for example uh, am nga ñun dañ am tourism sector boo xam ne mm-hmm. it's very vulnerable to exploitation suñ xale yu jigéen yi xale yu góor yi suñ xale yu ndaw yi ñu diasporance foofu noonu te ñun suñ touristes yi fi ne leen di screen we and we allow serial rapists mm to mm-hmm. come as tourists as long as yaa ngi amee nag two hundred dollars pour nga ñëw spend mm-hmm. Mm-hmm. we allow serial pedophiles pour ñu ñëw fii nii we we allow all sorts of people because there is no screening screening process anybody ku jóg rek am nga pounds suppose rek nga mën a jënd ticket because everything is all inclusive so léegi ban effect la am man I see beyond numbers numbers are fine Gambia could claim ne okay this year we have ban to what to what to what effect what what to what what are the consequences of this one, one, one million mm-hmm. tourists naka la yaayee dikka bi mm-hmm. socially morally culturally mm-hmm. even psychologically because it leaves and and it's impunity look at that that France boobu noonu that security advisor bit bi di di daa xale bu ndaw she's back work mu ngay liggéey yow ban dëkka nga dem Europe nga def loolu ñu baala nga delluwaa di liggéey amul on a sens so léegi man it's time ñu start although we want the money from in fact xaalis buy dugga si from tourism ñun duñu si dee njëriñoo mm-hmm. because all inclusive bi mm-hmm. dafa yaa secteur bi mm-hmm. hôtel yi ñu moom hôtel yi ak ak ak operators yi ñoo dee génn everything dara du fi dee des ñu fa du fi dee ñëw sax foofu lañ dee spend everything fa la dee des ñoom dañ dee ñëw rek ñu enjoy rek dem suñ taxi drivers si bij bi mhm. they are not making money mhm. Mhm. suñ horse horse riders yi they are not making money juice pressers yi are not making money suñ tour guides yi are not making money suñ eh, fruit sellers yi are not making money nobody is making money at the tourism industry ba pare ñu ngi exploit suñ xale yi ñu ngi abuse suñ xale jigéen yi ñu ngi rape suñ xale yi it's just bad and suñ amee government boo xam ne xalaatam soriwut ñoom lu ñu alaal ne ok figos mhm. oh diiri sozin bi ni am nañ five hundred thousand dollars mhm. at what consequence man mhm. foofu laa bëgg ñu seet ok d'abord <laughs> okay man damaa wax beneen side because man you see, you see this all inclusive tourism I'm not a tourist expert why I visit the tourism industry very frequently and I go there I talk to people ñu nga xam especially the Gambians those who have restaurants and that stuff and I've seen the Minister of Tourism defend this all inclusive package very enthusiastically. waaye man su gis-gis mooy I think Gambia government is losing revenue. because dëgg bi mooy. you look at the tour operators in Gambia maybe two three la ñoo ko control. and what happens is like most of these stories pays in Europe. naka la Gambia government di accounted this money ba mun a charge these people tax sax. they can always under their revenue. That's one. Mm-hmm. Muna nyo fay taxa. Mhm. Possibly because amuñ fi office. The payment is done in Europe. Mhm. The money stays in Europe and they come here with maybe some chicken change and they come, they spend it. Mhm. They go to these hotels. I think they need to look at also the hotel industry. Tubaab bi mënutaa jógee Europe. mu ngi lekka foofu the same kind of food mu ñëw Gambia tam muy lekka the same kind of food déglu the same kind of music. When we have a push because the, the, the, the, local Gambian can, can, can, can earn money from the industry. But sune gana tubabi sunye spaghetti la mon leka. Mm-hmm. Spaghetti bi Gambia is not manufacturing spaghetti. Understand? <laughs> Sune ge juice bu mo is coming from Europe. Mm-hmm. Understand? Mm-hmm. So at the end of the day, we happen like the money comes in and will flow out the other way around. So degala you will have the numbers, but monetary wise impact bi nekk and that is why soo xoolee di tourism industry hotel industry bi man lu ma gis mooy it's more of like slavery moo fa nekk because people work for nine ten hours paid very low mm-hmm. fu nekk ni time bi jeex na saabali su ah, gën a gaawee one ah, minute dama mm-hmm. ah, one minute fii bàyyi wax man dama wax <laughs> tourism situation bi dafa dafa daw yaram <laughs> you know am nga di the classic Uh, to to sell your soul to gain the whole world mm-hmm. nga nga jaay sa ruux bi pour am aaduna xam nga loolu yow perta nga mm-hmm. lu ñoo am uh, uh, tourisme lu moo yaaxa si dëkk bi comme mm-hmm. docteur lu mu wax lu ñoo foyee suñu xale yi ak yi yëfi homosexualité yeeg nonsense yu fi gars yi ici yëpp boole si xaalis bi ñoo sa bu bari euh, bitim réew la moo des ñu ñëw fii ñu tëj toor yi si si biir hôtel yi mm-hmm. suñ mbokka yi nekk nga xam ne ñu ngee struggle pour jaay gerte saaf ak naana pour mun a dimbale sa sa njoboot yi mm-hmm. ñooñu ñëpp ñu daaxaleen mm-hmm. daanaka si business bi pour tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo moom hôtel yi nga seet loolu luñ say séntu sax si xaalis amuñ ko boole si ñu ñëw di jaaxa suñ aada ak suñ cosaan ak suñ diine mhm. tourisme war nañ koo seetaat mhm. maa ngi ñaan imaam yi ak labe ñu jóg nag wax ak nguur gi <laughs> xam nga lu si gën a bon a bon ma daaneel rek non ma daaneel lu si gën a bon a mooy ne <laughs> one dañoo ex dañoo employ suñ suñ sister ak suñ brother industry ñu leen a less than the value of their labor dañoo mm-hmm. liggéey leen fay ay thousand dollars lañ leen a fay dañu leen a exploit mm-hmm. tout lu ma dee gën a métti mm-hmm. soo demee si biij bi ñu ne noo tubaab yaa ngi reer ba kenn bu ren dugal bi ko tubaab yaa ngi ree dafi ñàkk fayda yooyu mooy non donc pour nekk ni jeen euh, li ñoo def rek mooy euh, dañ leen ni euh, maanaam bàyyi ba next week of course Friday incha allah Friday incha allah dina ñëw fii nii 4 pm ñu ñëw continuer ci beneen topic bi nga xam ne rek moo yitteel askan bi lii mooy gis-gis lii mooy waxtaani tey bi next week Friday incha allah ne leen gis ah, declare a state of emergency in two circumstances. Mm -hmm. Now I believe go.